bi tey la àllarba. àllarba bii nga xam ne bi ñu màggalee ba pare mooy première àllarba. mbokk yi ñu am mbégte ak contentement bu mag. tey suñu programme danañ dem seeti ki nga xam ne mooy président Macky Sall. président Macky Sall nag am na wax joo xam ne daf ko bëgg wax ak yi. benn ñaareel bi. Cissé Lo nee na créé bii nga xam ne mooy woo Karim di ko bàyyi ak di ko xëcc di fële nañ ko teg fale loolu du dara. coow jógaat na foofu am na yeneen ñaar yoo xam ne dañ koo làq pour ngeen mën a toog waaye xam ngeen ne émission bi tey thématique lay doon ala daw me ki ñuy woo nag moom mooy soxna Mati kaay taxaw euh, parce que il faut ñu xool jongante bi fii kan nañ fi war a bàyyi ak kan moo war a yéeg léegi damay jël benn jigéen boo xam ne day ñëw mhm. wax li nga xam ne moom la Mati di wax su paree Mati bantu ñu xool ñoom ñaar kan mooy wàcc ak kan mooy toog soxna euh, ñanga kaay jox ko micro taxawal ne ci ginnaaw ay ci ak concentration soxna ña nga présenté ñu produit yi nga xam ne mun nga nekk ci ginnaaw mun nga toog ci ginnaaw kon ni mu ko defee moom présenté ñu produit ci tàmbali ba ca cat ba mm-hmm. asalaamaaleykum ah, maa ngi leen di nuyu yéen auditeurs yi ak auditrices yi di leen wax ne ñu ngi ci suñ taabal bu yànj bi tey nekk biir Kouthia Show maa ngi leen di présenté nag suñu produit bi nga xam ne mooy CT plus CT plus gamme la am na lee am na gel am na tube am na savon boo bëggee maintenir sa teint bii ngay jël léegi nag ñu dem ci bu carotte bi moom itamit mu comme nii la rek ah CT plus la moom mooy bu carotte bi man moom laay diwoo 10 jours nga gis résultat daw leen jëndi ko moom it gamme la comme bii am na savon am na lait am na tube am na huile tàccu leen ma dem nag ci gaami Madaar bi nga xam ne ñoom bañ jàppee ba tey nag bàyyiwuñu ku ne xam ne ne Madaar moom mooy dimbale njaboot yi mooy dimbale jeeg gi ci seen kër am def na eau de nga ko def na pat pat bi moo nekk nii boo xëyee da ngay da pat sa gémmiñ ak ak ak meera bu ko defee di nga mën a wax te di nga mën a ŋàng waaw bañ jógee ci pat nag ñu defal ñu saabu ku ne xam ne ne saabu or saabu mooy fóot ñu defal ñu saabu ordinaire te jeeg jëpp saabu la ñuy fóotee xam nañ ne saabu mooy fóot ñu jóge ci saabu ordinaire ñu defal ñak saabu sangookaay xale na ko sangoo mag mën na ko sangoo waaw ana kii bi am na beneen jetol bi dégg ngeen léegi bu ci jógee <laughs> ñu man li ma neex ci meew bi ah maa ngi ñëw maa ngi ñëw damay njëkkee ci meew bi li ma neex ci <laughs> meew le kara mooy dafa am quatre vitamines bi ma ci gën a neex nag mooy calcium bi booy tëdd nga xooyal naan dangay ngay dégg jàmm am na bu mag am na bu mag daw leen jënd meew l'écran mooy meew du gën de bi ma jógee nag ma dem ci Rio ku ne xam na ne Rio waaye Bisco ñoo ko defar defar nañ nag bonbon am na chocolat am na vanille boo xëyee xooyalal sa meew def sa ñaari bonbon dal di dégg jàmm mën na laa yóbbu ba guddi lii laa wax macha allah. ma ne nag yéen yéen ñi nga xam ne yéen a yor ah, affaire yi ñëw leen Belise Belise Belise Viti <laughs> bi Belise Viti bi. ok merci. Belise Viti bi la. taxawal taxawal. Belise Viti. commencé. bonsoir tout à tous mbokki xarit yi mbégteeg bànneex laay amaat jàkkaarloo gi yéen di leen présenté sama produit yi nga yaañ ne moo nekk sama table bi damay dugal daal di dugg yéen ca li nga xam ne mooy gaamu CT plus CT plus ko tax a jóg koy gis am na li nga xamante ne mooy lait bi am na li nga xamante ne bi mooy huile bi am na aussi li nga xamante ne mooy tub bi amante ne li nga xamante ne mooy savon bi nee naa la picc tâche xam lépp loo xam ne ni bokkul sa yaram macha allah da koy dina opéré jox la 10 jours nga daal di mel ni la neex daal di weex tàll mu hydrate sa teint te doo am benn problème duñ fi yàggal sax. doo moromu kii doo moromam ci fenn yow yaa fiy nekk benn. yow kii li muy wax maîtriser ko. ay téléspectateur ngay wax ak ay auditeur wàccal wàccal wàccal fële wàccal. eh yuuxu leen ko. merci kay jërëjëf kii li muy def nii da koo jàng rdv la nekkoon jaar DTV kii dafa yàgg wax ay télé yi ay caaxaan yi indi ko fi dafa mën liggéey mën sañse ba pare ànd ak dal nekkul fi naan ay am na meew bu mag ak bu mag nekkul fi naan ay calcium ak leneen auditeur mooy kii déglu rajo téléspectateur mooy kii seetaan télé kii nag yow lii moo tax jàng baax moom bañ na koo jàngal nekk fa la jàngal fa la nekkoon ci école ba di dàgg sant ak ba ak mu teel a génn waaye sa place bi gëm naa ne ku la fa nar a jëlee ah. Ah. dina metti trop ah, il faut mun a sañse kon yow tey kon yow mm. jàng kon yow mm. maanu kon yow yéen a jàng kon yow <laughs> te nekkoo triant kon yow boo ko defee rek triant nekkoo triant dama juum nekkoo triant loolu wóoruma waaye <laughs> notamment bu mag ànd ak sponsor yaa ñi nga xam ne nag leen ko waxee dem ci l'écran ñëw ci Rio ñëw ci Madar ñëw ci groupe CT plus bi nga xam ne daf ñu indil ñaari gaam bi nga xam ne fukki fan nga mel ni la neex ba minti le certain ñoo la may seen émission Kouthia Show ci ndimbalu ñi nga xam ne nag ñoom ñooy euh, service commercial ñuy am mbégte contentement di sant yàlla suñu borom waaye tamit di julli ci Seydina Mohamed gërëm tamit suñu ñaari waajur bu dee ñu ngi ci àdduna ñun ñëpp ñu ngi leen di gërëm képp tamit koo xam ne sa waajur dafa di delloo njukkal di gërëm tamit njabootu alaaji Cheikh Omar Foutiou Tall di gërëm tamit ci suñu bàyyi sëñ Muntaxa Basiru Mbàkke xalif général kuli murit yàlla na fi yàgg te wér sëriñ Mbay Si Mansour xalif général day Tidiane fi yàgg te wér ak Pape Malick Si bi yor kàddu kër ga yàlla na yàlla guddal fanam di ziar tamit sëriñ Cheikh Jëmb Fall xalif général day Baye Fall sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane xalifa Niass nekk ca Medina Baye ak sëriñ Mame Abdoulaye Thiaw xalif Laayeni Cheikh Ahmed Tidiane xalifa euh, Niass ca Léona Niassène imam Cheikh ca Medina Baye Cheikh Bekay Kounta xalif général bu Ndiassane ak Serigne Cheikh Tidiane Seck xalif bu Thiénaba Thierno Bachir Tall xalif Omar yeen ak doom ji Cheikh Omar Serigne Mounirou Diegane xalif Cheikh Amadou Baro Diegane Chérif Khaya Aïdara ca Nimza Serigne Mouhamed Lamine Ngom ca Pal Cheikh Ahmed Tidiane Ba xalif bu Medina Gounass Serigne Youssouf Mbaye xalif bu Mame Cheikh Mbaye Serigne Mansour Mansour Cissé xalif bu Pire Serigne Mame Abdou Dramé xalif bu Nanda ak Serigne Mame Abdou Cissé euh, xalif bu Jaamal Thierno Madani Tall xalif bu Thierno Mountaga Tall njaboot Cheikh Moussa Camara Cheikh Moussa Cissé Ndiamé borom daaru ca Passy Thierno Abdourahmane Bari Waliou Kamil nekk ca Bogol Thierno Hamdou Rabi wan ñu ngi koy ziar sëriñ Abo Mbacke xalif général bu euh, xalif bu sëñ Fallou Mbacke yal na yàlla guddal faram ñuy nuyu tamit suñu baay Cerno Sama Sa Morabi waaye di gërëm ki nga xam ne mooy sëñ Fallou Mbacke docteur docteur ci zayen ak ci baatin jëwriñ Moustapha Sène ñu ngi koy nuyu di am mbégte contentement ci góor gi Samba Ndiaye mi nga xam ne nag mooy représentant xalif général des Tidiane nekk ca Casamance ñuy gërëm tamit suñu baay euh, imam Fansou Bodian xalif général de la communauté Diola nekk ca Bignona sëriñ Cheikh Saliou Mbacke xalif général sëñ Saliou Mbacke yàlla na fi yàgg te ba ca war a fonde Cerno Mouhamadou Anor Gaye nekk ca ñànk idi alaaji Mouhamadou Gaye nekk ca Mbour Tefesk Serigne Habib Gaye mu xadamu sëñ si alaaji Mansour Ndiaye waaliyu Kaamin di nuyu tamit suñu euh, yaay Euh, ajaratu Bousso Cissé Serigne Mama Sugu Waadaan mi seexal papay Awakara Cheikh Adama Niang borom xecc gi alaaji Seydou Sow sopp sëñ Fallou dëkk sa pasi sëñ Abdou Karim Mbacke nekk nag euh, foofu ca Ndindi ñu ngi koy nuyu Serigne euh, Mama Meng Modou Fleur di jëwriñ ca kër ga nañ ko cardinal Théodore Adrien Sarr Monseigneur Benjamin Ndiaye abbé ak mboolem chrétien boo xam ne yaa ngi ci paroisse ci église yal na yàlla defal jàmm woote bi dëgg yàlla cardinal bi lancé na bi loolu xam naa ne guney yi ak mbooleem chrétien yi nga xam ne seen yaakaar ñu nga xam ne mooy église ba nekk ca Popenguine nga xam ne paroisse bi la boo xam ne yàgg na loolu waaye ñu ko yeesalaat ba mu mucc ci jamono yàlla yàlla motale yëpp ci barke Seydina Muhammad ci barke tamit ki nga xam ne mooy yonent yàlla Yeesu Christ ndax julli di yëg chrétien yëpp ci dugal seen loxo ndax foofu mu nekk ca mbokk yi ñu ñaanal yàlla motal lépp waaye di gërëm tamit suñu baay bopp Serigne Mansour Sarr chef religieux dëkk ca Budi ak suñu yaay Adja si bu Serigne si bu Serigne eh, bu bi ñuy jooy ba tey noppi guñu gàmmu nag bu international bu Budi sëñ Mansour Sarr joxe na ndigal taalibe yi ñu ngi koy waaj a jëfee te nag ñu ngay jëfee li nga xam ne mooy préparation CRD bi yana yàlla may ñu egg ceeg jàmm ndax Budi toll na foo xam ne léegi eh, gàmmu gi dafa dépassé li nga na fi yàgg te wér maître na fi yàgg te wér sëriñ Babacar Abdoul Aziz Sy alaaji Tafsir Sakho Iliman imam ratib bu Banjul alaaji Aliou Maska ñoom ñëpp yal na yàlla guddal seen fan may leen fan bu gudd góor yaram alaaji Ibrahima Mbaye Khalil Laaz ñu ngi koy ziar alaaji Aala Mbaye bëgg mbaxal nekk ca Serekunda yal na yàlla guddal fanam di ziar tamit mi nga xam ne wëllëre la ci imam Maodo jàmm di ñuy tamit imam Kasso ko ziar góor gi Ablaye Niang jànkatu xasaay nekk ca Ndar Géej yal na yàlla dëgëral ay faram may ko fan bu gudd góor yaram ziar tamit sëriñ Baara Serigne Cheikh Ndigal Sène nekk ci Njàmbur Sine am mbégte contentement ci Alaaji Mouhamadou Aysata Alaaji Mouhamadou Aysata xalif général bu Guet Ardo ñu ngi koy nuyu waaye tamit di nuyu ki nga xam ne mooy porte parole ba di Cheikh Aldiouma Ba di porte parole xalif ba Guet Ardo mboolem pël boo xam ne yaa ngi Guet Ardo xalif bii di xalif di Alaaji Mouhamadou Aysata yan na yàlla guddal fanam ñoom seen yaakaar yëpp lu ñu ko wékk ci kii kii moo leen jotale kii la ñuy jox bopp nag kii ñoom mooy seen yaakaar ñoom seen jébbalu ci moom dafa nekk lu dëgg képp kuy pëlu dëkk ca Guet Ardo ñu ngi ñaanal ñu ñaanal suñu baay bi nga xam ne mooy xalif général bi Alaaji Mouhamadou sata xalif général euh, ca Guet Ardo yal na yàlla gudd fanam di nuyu porte parole bii nga xam ne am na yar am na teggin nekk tamit nit ku yiiw di Cheikh Aldiouma Ba yàlla ko yàlla may fan bu gën a góor góoram Chérif Abdoul Moutalib Tidiane di sëp ci Cheikh Ahmed Tidiane nekk ca Pikine yal na yàlla gudd fanam yal na ko yàlla may fan bu gudd Thierno Mouhamadou Amadou Li xalif bu Daaru Kaba Thierno Cheikh Ñang xalif bu Boynaaji Thierno Mamadou Lamine nekk ca Dungu Arafa kilifa diine yi yal na yàlla gudd seen fan imam Mansour Seck nekk ca yëmbal yal na yàlla gudd fanam ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér yaram di animateur bu mag nekk ci Asfiya FM rajo bi nga xam ne mooy rajo Tidiane yal na leen yàlla defal jàmm sëriñ Mouhamadou Moustapha Sow waaliyu Kaamil la mooy xalifu sëriñ maam Abdoulaye Sow ca Dagana yàlla yàlla gudda fanam sëriñ Ahmadou Dame Sow sa Moustapha sama la yàlla yàlla gudda fanam sëriñ Ahmadou Seck xalif bu Alaaji Seet Seck nekk ca Xurdaan département de Koungheul ñu ngi koy ziar Thierno Alassane Mbaye di taalibe Thierno Aliou Thiam ñaari waaliyu Kaamil yaa ngi noonu yàlla yàlla gudda seen fan di nuyu sami sëriñ Saliou Diouf nekk ci Mbuuf Mbaaleen moom mi nga xam ne nag moom euh, dafa dëddu àdduna yàlla yàlla leer bàmmeelam waaye taawam bii nga xam ne moo ko toogal ci kër ga di sëriñ Khadim Diouf xalif bu sëriñ Saliou Diouf jëwriñ bi di Serigne Modou Diouf gaynde Cheikh Saliou Mbacké yal na yàlla guddal seen fan ñuy am mbégte contentement di nuyu sama xarit sama wëlëre alaaji Cerno Bari Fat Fat ziar tamit Serigne Cheikh Baara Amar ca Naameen di nuyu tamit alaaji Ousseynou Diop nekk ci biir Kama bëgg bàyyi waaye ñuy nuyu tamit alaaji Mbacké Tandian bi nga xam ne ah, dafay bàyyi ay njabootam moom ñu ngi koy ziar di ko ñaanal yàlla yàlla leer ba ma leen waaye di ziar Baye Niass Tandian ak ñaari xalif yi di alaaji Mbacké Tandian alaaji Omar Tandian yal na yàlla guddal seen fan Serigne Mame Samba Dramé xalif bu ah, ah sëriñ Makhtar Kala Dramé nekk ca Dramé dimb yal na yàlla gudd fanam waa ci mbaxa mbaxoon nag ñoom ñëpp nag yal na yàlla defal jàmm dale ko ci xalif bi bi nga xam ne moom mooy sëriñ Idrissa Jaxate ah, sëriñ Ousmane Jaxate imam raati bi tamit ñu ngi koy ziar Idrissa Jaxate yal na yàlla gudd waaye di ziaraat ki nga xam ne mooy suñu yaay suñu soppe ajartu ndey Sofi Taal bu Cerno Muntaga Taal borom Alpha Voyage yal na yàlla gudd fanam mbokk kilifa diine yi yal na leen yàlla fi yàgg ci wér mboolem kilifa diine boo xam ne yaa ngi yeewoo ci réew mi yal na la yàlla sàmm yal na yàlla dindi bépp gàllankoor yal na leen yàlla teg teg ci li nga xam ne moom mooy moytu leen lépp luy seytaane ci yoonu siraatal mustaqiim bi ñu nekk yal nañ ci sax ñi nga xam ne dañoo dudd àdduna yal na yàlla leeral seen bàmmeel waaye nañ nañ wax ne euh, li nga xam ne mooy dialogue religieuse bi am diggante tarixa yi nga xam ne na mag ñi dañ ko fi doon topp ba tey ñi koy sàmm ba tey yàlla bu ko dara yàq diggante ñun ak chrétien yi nga xam ne dialogue islamo-chrétien bi dëkkandoo bu rafet bi yàlla ko yàlla sàmm ndax Sénégal moom bu ñu ne tarixa wax diine wax dëkkandoo rek lépp mu ngi mu ngi mu ngi nekk ci nekkin environnement bi ñuy nekk ñun ak suñu mbokk yi euh, euh, euh, chrétiens yi ak diggante murit ak tiijaan nag laayeen ñasen bépp tarixa dañoo tëkku ci yoonu Seydina Muhammad ñoom ñëpp ñoo bokk li ñu uti waaye jàmm jooju nag bu ñu koy saxal suñu biir rek réew mi dina jàmm mbokk yi <laughs> sama benn bu ñu naan tubaab yëngal na dëkk bi de suba dinañ ñëw ci lu tax ñu ne tubaab yëngal na dëkk bi ndax président Macky Sall war na dem le 28 géejawaay am lu mu fay inauguré tubaab nee na balaa muy ñëw géejawaay dina ko xamal bu baax ne ko am na ñoo xam ne ñu ngi ci suuf di yàq waaye loolu dina ko leeral tubaab yëngal na àddina yëngal na géejawaay mbokk xam nga ku ñu seeti Moustapha Cissé Lo nee na créé bii ak créé bii ki créé créé di créé ak CREI bi nga xam ne moo créel Karim ba Karim génn ci réew mi ndax CREI CREI ñu dem xooli lan mooy CREI yi acca <laughs> maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant xam nga li ngeen di wax ni mooy wéral li kàddu yu may ñëw di waaj a wax parce que kàddu yu may wax ni ku tappet du ko wax koo xam na tamit dangay nekk di lekk mburaake bu sedd du ko wax mburaake balaa muy neex tàng jër góor dëgg dafay log nen bu tàng muy bax baxi si làmminam te du tuflit pomme de balaa muy xam na gërie dëgg par pomme de terre bu baxee ci cin nga xolli ko ne ko prux bu jàllee sa diggante police bi ak sa ŋaam boo dee góor dëgg waroo nga te man am naa fi ànd ak du tax tamit ma wax li nga xam ne moom laa sentir gis nga créé bi nañu ko jël tëj ko amul benn njëriñ maa ko wax lu tax ma wax ko dafa am ma ko teg parce que tamit nañu waxante dëgg di topp nit di topp nit ba fàtte liggéey bu yàggee dootoo liggéey toog lu mu munti wax le président Macky Sall sénégalais yi ñoo ko gëm Macky Sall bu ko sénégalais yi bëggul woon duñ ko joxaat deuxième mandat mais bëgg biñ ko bëgg bëgg mu liggéey moo tax waaye bu ñu koy topp di ko wax na ko toppal diw bàyyil diw jàppal diw ana diw ana diw ana diw bu yàggee moom mandaam jàppaate rek te Sénégal du dëkk boo xam ne dañu président commissaire nañu soxla wala président pénitencier Macky Sall du pénitencier boo ku mu jàpp rek na la ràpp ci kaso c'est le président de tous les Sénégalais. waaye dama gis ne buñ fay wooyee Karim ba tey keneen demu fa. te bu ñuy wax tamit démocratie dañu war a xool loo xam ne mooy yenu maana man damay wax dëgg rek te yàlla tax président li may wax nii président Macky wax naa ko ko parce que amul sens Abdou Diouf moo ko fi tegoon mais lii amul sens. le président Macky Sall n'a pas le temps de topp ay benn nit. il a le temps de topp les projets de ces Sénégalais. waaw c'est ça. Macky Sall du topp ci benn nit rek ñuy wax ay diw la jàpp il n'a pas le temps de Sonko. Ah amul temps wu Sonko amul temps wu keneen. Ah ah les gens qui parlent du troisième mandat c'est des gens qui qui vont créer des polémiques yoo xam ne xam nañ ñu leen yónni mais Macky xam na li mu war a def ak li ko yoon war a may buñ ci eggee danañ ca wax waaye topp di wax président Macky Sall lii ak lële loolu bu jotee danañ ca wax. bu ñu kenn rey bu ñu kenn fat man ànd ak makki du tee wax dëgg ah. ànd ak peuple bi tamit bu ñu deful yoon danaa ko wax bu ñu ma meree ñu xam ne man ëllëg si solo waxoon nañ ko ngay dégg. waaye bëgg fat Sénégalais yi bëgg leen na rey Macky Sall na jàpp diw na tëj mais y a des gens yoo xam ne bu ñu waxee bu leen tontu Macky wax naa ko ko nee naa ko man bokkuma ci ñi nga xam ne dañu lay tàccul waaye ndem si yàlla gi dans soxo daan na ko ko wax. te daan naa dégg Kouthia di ko way naan ko bul faale bul toppatoo yow demal liggéey. yow bul faale bul toppatoo yow bul faale. waaye ni get up get up get up waaye get up now. nga ne yow ay bul faale bul faale ay bul faale. Why you get up? Why you get up? Get up, get up. Get up now. Why, why? Nga ne. Why you get up? ci ak contentement baax morceau boobu nga xam ne nag moom la Idrissa Diop waaye yoone ko ne jël ko ci yoon bi nga xam ne wax dëgg yàlla mooy yoonu murid waaye ci tamit ki nga xam ne mooy kilifa gu tedd gi Xaadim Rasul ñu ngi koy félicité ndax morceau bi wax dëgg yàlla euh, mu ngi commencé nag di lasaaroo ci biir euh, télévision yi clip télé boo taal gis ko fa mooy wane ne ka am na qualité te ki ko way tamit ndaanaan 100 pour cent la ñu ngi koy félicité delluwaat di gërëm gàmmu gi nga xam ne nag ñu ngi koy préparé gàmmu yi xam nga fépp fu ne day am gàmmu am na gàmmu Tiwaawan am gàmmu Njaasaan am gàmmu Ñaseen gàmmu euh, Murid yi am na fépp laa yéen ñëpp dañu def gàmmu waaye ren xam nga ñu may invité waa Guet Ardo waaw xalif bi ci boppam Alaaji Mouhamadou Aysata xalif général bu Guet Ardo kii di porte parole di Aljuma Ba porte parole bi moo ne ma ñun ñoo la invité sama mbokk Haalpulaar pël yi nekk Guet Ardo nga xam ne kii seen sëriñ mooy Alaaji Mouhamadou Aysata nga ne lu ne lu ne lu ne lu ñu bëgg rek bu ñu demee nammuñu dara ñoom moo leen doy moo seen wasi moo seen lépp moo taxit ñoom nee nañu ren dañ bëgg Abou Bilal nekk ci biir bi ren kay ku ne ma euh, euh, euh, jamtan man la moo dow seede seede waawa kay yu jiruma yo allah suren yo allah suren alhaji mouhamadou bu gën aduna allah suren yo allah suren mi juurima mi yidima mi beltima billahi yal na yàlla guddal fanam di ko ñaanal taxawaayam yàlla fi yàgg ñii sama mbokk yi diggante Daara Jolof ak Guet Ardo benn la rek boo xasee ba dugg Louga moom bépp mbopp Haalpulaar boo xam ne yaa ngi ca côté boobu jàpp Guet Ardo Linguère Barkedji mbokk Haalpulaar yëpp ci benn bi géejo bi la ñun ñëpp ñoo bokk parce que Haalpulaar dafa dem ba ci Niger boo demee Burkina Burkina Faso ba Mauritanie am na ñuy wax ay Haalpulaar nañu waa Mauritanie yooyu yëpp àll boobu yëpp da ngay gis Mauritanie mooy Haalpulaar mooy làkk bi nga xam ne melu kon làkk séeréer yi xam nga séeréer yi seen làkk fii la yem mais Haalpulaar seen làkk dafa dem ba ay Niger mais boo génnee <laughs> demee ay euh, côté Burkina Faso dafa làkk <laughs> di nga gis di nga yéex gis ko ne mais boo génnee Mali gii rek Mauritanie boo waxee boo nee ah, euh, boo waxee euh, kii Missel Mignone Bandaraabe ñëpp lay wuy demee Mali wax Haalpulaar dañ lay wuy boo demee Niger dañ lay wuy Niger boo demee Somalie gi sax dañ lay wuy waaye séeréer. séeréer de boo paasee jiwaalo gii wala ñu ne fu mu àndandoo xel xaaral mu noppi sax yéey fàtte naa bàyyi mu noppi sax waaye yooyu yaa ami seen dëkk fële la la dama am ay goro séeréer yoo xam ne bu ñu ko déggee sax atta nañ ne am dootu ñu ñibbiti bu ñaatee fii dañ koy téye bàyyi ma yemale ko fii rek séeréer yi ñooy buuru ñooy buuru ñooy buuru joolaa yi <laughs> séeréer daal ñooy buuru joolaa yi falaa mun a yem kon mbokk yi ñu ngi am mbégte ak contentement bu mag nag di gërëm tamit bu baax di sant ndax xam nga dafa am loo xam ne Euh, bu la ko sa kilifa defee dañ koy sant xale yi ngeen yokk góorgóorlu soo gisee ma wax leen ko démb seen patron moo woote gërëm seen liggéey waaw Youssou Ndour démb ay minuit et demi yëkkati na téléphone am ne rafet na lu baax liggéey bi ngeen di liggéey euh, ci télé laa ko waxee nag mu ngi seetaan dara ump ko ci émission bi mais nee na mention spéciale vraiment kontaan na parce que ouverture bi nga xam ne def nañ ko suñu diggante ak Walfadjri ak suñu diggante ak Sa Ndiogou rafetlu na ko bu baax a baax. nee na da koy fàttali rek wujj xam nga nit ñi ñooy créé ay wujj diggante Youssou Ndour Omar Pène nit ñi demoon nañ ba def ay wujj wujjante leen te duñu ay wujj te umpuwuñu dara diggante Kouthia ak Sa Ndiogou gars yi defoon nañ ko ay wujjante mais umpule wuñ dara tey ànd gi ma ànd ak Sa Ndiogou sénégalais yi ñoo ci bénéficié wu parce que ñëpp a ànd di ko ree ku soppoon Kouthia te ak ku sopp Sadio Gu ñaar ñun bu ñu toogee kenn ku nekk dangay ngay ndax boo paree rek da nga naan ah, suñu waa tey bégal nañu rafet idée boobu nag patron bi ci boppam nee na kontaan na ci ouverture d'esprit boobu te rafetul na ko. lii moo tax nag liggéey baax gis nga booy liggéey ba sa patron fekk la ci waar bi ne la waaw góor ni ngay def baax na da ngay yokk jom war da ngay taxaw. kon Ndour wa Ndour Rabel Gane yàlla na yàlla defal jàmm ndax bu la neexoon seetaan na nepp nepp nepp ndax yow dara yëngul la la ngay def ci boppam yaa yëngal nit ñi kon lu la yëngal warul te boo demee ba am lu la yëngal na nga yëgu ne li ngeen di yëngu yëg naa ne yëngal na ma kon Ndour yàlla na yàlla defal jàmm mbokk yi. waaw. Abdoulaye Wade wax na de. laaj la lu mu wax. mu wax. ak yéen. jërëjëf maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen gërëm di leen sant ci seen taxawaay boobu léegi nag partie bi ñu ngi laaj ne président Macky euh, Abdoulaye Wade dafa war a ñëw rendre compte militant yi ci li waxtaane woon ak Macky Sall waxtaan nañu waxtaan bu yaatu te bu soobee yàlla li ma wax ak moom bu fekkee ne dégg na ko te génnu ci nopp bi mooy jàmmi réew mi ak jàmmi Sénégal ndax ginnaaw ay jàmm te amoon na ay jàmm ñëw kon jàmm day fay ay te lii nga xam ne moom la sëñ Mountakha Bassirou Mbacké def kilifa diine yëpp ñoo ko rafetlu ndax euh, Pape Malick si keroog bii affaire bi am mu fa toog te bu demee dana ko nettali sëñ Mbaye Sy Mansour kon lii la l'islam woote jàmm lislaam waxul fenn yoon ne nit bu ànd ak nit nañu noonoo déedéet dañu nañ leen jubale moo tax it jëmm ju tedd ji li ci def mu dem ba yàlla def ñu waxtaan moom moom devoiram ma nga yem ca ba ñu joxantee loxo ba waree ne jaamam na lu ci tegu nag ñun la engagé ak lu ci munte am ñun la engagé donk ñi nga xam ne dañuy wax ne ay diil la nañu xam fu ñuy waxee parce que tamit dafa am loo xam ne boo ne diil la rek day mel ne la commencé ci kaw ba ci suuf mooy diil su may wax Abdoulaye euh, Macky Sall sama diggante moom la kon jàmm jooju ñuy am yal ko yàlla def mu yàgg waaye nag coow yi nga xam ne moo am ñaari fan yi ci deuxième mandat troisième mandat dama bëgg ngeen ne muut yéen waa PDS bu leen wax bu leen joxe seen xalaat ku leen woo rajo pour affaire loo leen ci xam bu ma leen wax loowul bu leen dem parce que dafa nekk situation boo xam ne li ma bugg daal mooy ngeen ne muut soo leen defee muut muut war leen yoon waaye boo deful muut muut yi moo lay wan yoon kon li ngeen war a def mooy ngeen ànd ak dal bu leen kenn yóbbu ci rajo yi ba ngeen wax ay dañu bëggoon laaj waa PDS Abdoulaye Macky Sall lii muy wax nii loolu ci xam nee leen dama ne ci yoon naa leen rappelé wala dama nekk ci euh, ngénte mu ngeen bañ a layoo sax ay dëj leen ngénte rek dama nekk ci ngénte yooyu waaw gis nga booy booy wax lu dul dëgg bu layoo musiba parce que yàlla bu <laughs> na rek loolu dalay dal bu ñu leen laajee waaw Macky Sall ngi bëgg a deuxième mandat troisième yéen waa PDS waaw da ngeen di ñëw suñu plateau ngeen waxtaan bañ leen parce que ndëgg sërëx da ci am waaw damay bañ nag ngeen bëgg lu ma neex dem taxaw fëgg table bi waaw lii waru koo def war war na dem bu leen dem su ma leen joxe ordre dem leen su ma leen joxul ordre bu leen dem waaye ku xool démb fi ma moom bu buggee fe jaar ah. bu leen ko wax moytu ne leen tekk rek ah. waaw ndax na bunt mooy ubbeeku fii la yem nag tàmm naa lu ma leen wax bu ma leen wanee hmm. lii laay waxati tàmm ngeen lu wax su ma leen wanee ginnaaw ah. ngeen génne ko eh, li ma leen wax dafa ma ñor hmm. kilifa mooy wax ak yéen seen réew da ngeen koy bàyyi dama ne li may wax ak yéen fii la yem waxuma leen ñu laaj leen ngeen ne Abdoulaye Wade nee na buñ ci wax ñu mel naka dama def diil tàmm ngeen lu may waaj a wax ngeen jox site internet yi yéen ñëpp am ngeen ay site nekku leen fi lu dul di nettali ak seen yii boo leen ko bàyyi rek réew mi dem na yem boo leen muut muut war leen yoon boo leen waxee nag te fii laa ko waxee xàmme naa day yéen ñëpp boo fi génne rek naa la. ku daaj yàlla may na ko mën na woy baatam neex na ànd nag dal kamay woy ku jara woy la sëñ Maam Mor Mbàkke yal na ko yàlla may fan bu ko dëgg wér gu yaram woy bi neex na ànd nag dal Serigne Maam Mor Mbàkke mu Serigne Habibu Mbàkke di caatu Serigne Mandumbe Xabaan borom xaba yooyu ca déyeen borom daara alxuraan yi borom social sëñ Maam Mor Mbàkke yàlla fi yàggati wér sëñ Maam Mor Mbàkke woy bi ñu la woyal te mu ànd ak dal noonu la dalee ku ànd ak dala ngi noonu borom ñaara ngi noonu nit ku oyof ngi noonu koo xam ne lu mu am bokkook taalibe yi xasaayit mooy dund ci këram boo ne bërëb dugg ci këram bërëb salaamaaleykum sëñ bi mbàkke café Touba nga sa génn boo la ko waxtaan ak yow oyof bilahi sëñ Mamour Mbàkke jëmmam ji kii yàlla na ko yàlla na ko yàlla may mu yàgg fi loolu ndax nit ku baax la ku nit ku mën a defal nitam nag lépp nag ci sutura yal na yàlla guddal fanam waaye tamit sëriñ siidi gay nekk ca tuubaa suñu soppe la waxoon naa leen ko fii mooy sëñ bi ngi nit doon laaj numéro dañu bari dañ koo dañ koo yittee woon parce que numéro am dafa leen réeroon moom tamit mu leen di ñaanal yéen ñëpp yàlla bàyyi bàyyi leen fi ngeen yàgg ci wér Serigne Sidi Sidi Jili Gaye ma nga ca Touba yàlla ko yàlla defal jàmm nit ko yàlla baaxal la yàlla ko yàlla may fan bu gudd ak wér gu yaram suñu xarit la suñu wëlër la te daf ñuy ñaanal waaye mbokk yi sëñ Fallou Mbacke docteur moom tamit yàlla fi yàgg ti sëñ Fallou Mbacke docteur yàlla fi yàgg ti dañu koy ñaanal yàggam wér ndax moom dafa nekk nit koo xam ne jëfam yëpp bu koy def du ci boole wax te yëmbal gee lam fa def ak na mu ëlbatey xale yu bëri ba ñu dugg ci yoonu murid téye ci te bàyyiwuñu sëñ Fallou Mbacke docteur yàlla na yàlla gudd fan ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax fële ca Njaañ Njaga Fatim imaam ratib bi yal na ko yàlla defal jàmm imaam ratib bi yal na ko yàlla defal jàmm Serigne euh, euh, Njaga Jaañ euh, Njaga Jaañ xalif bi ak Serigne amaar Diagne ñoom ñëpp ñëpp ñu leen di nuyu waaye sëñ Issa Sarr sopp na bi tamit kenn du moom yal yàlla gudd fanam ma delluwaat di nuyu tamit soxna Moomi Kebe bi nekk ci Touba moom tamit jigéen ju mën góor la yal ko yàlla defal jàmm di nuyu tamit boroom këram ab Ablaye Tagge moom tamit ñu ngi koy sant. di ko gërëm bu baax ndax gis nañ taxawaayam réew mi nag boo baaxee nag ñëpp dañ lay bokk waaw parce que ku baax rek moo jar a àndal ku bon moom bu jarta ànd moom mais ku baax jar jarul nëbb nit ku baax dañ koy génnal baaxam waaw am na ñoo xam ne nag dañuy bëgg ku leen nëbbal seen baax waaye moom baax moom mu ngi noonu boo baaxee rek da baax waaw boo baaxee na bëgg bon te baax na yow doo bon doo musa bon am ñoo xam ne fa nekk seen am ñoo xam ne ñu baax baaxlu mais ñi doon ñi ma fi lim ñi dañoo baax euh, mbokk yi euh, Habib Sy Serigne Habib Serigne euh, Mbaye xalif général Tidiane sama papa sama soppe moom ci boppam moo jox ndigal Alaaji Abdou Dramé xalif bu Abdoulaye et la communauté sénégalaise mulise pour lii nga xam ne moom lañ bëgg a tàmbalee di première édition gàmmu bi am à la mémoire de Adjaratou Abi Dramé le 26 octobre bii gannaaw suba ca salle de Pâques Gloum Mulhouse ki koy présider mooy sama xarit sama soppee di Serigne Habib Sy Mansour moo koy présider animation ma nag Souleymane Ba ak Sambay parrain ba di imam Mactar Diouf ca Lyon ñu ngi koy préparé guddi gu am solo gu nii xam nga ñii lu ñu def fii dem ba Joal Fadiouth jëf fa 34 séeréer ay maire séeréer pour ñu toggal leen cere maire yoo xam ne mosuñu voyagé ay maire séeréer ñoom maire Ngiraan ñoom maire Sadio Sarr yaa yaayu ami ci délégation bi la bokk ñu yaayu ami benn sama goro moom day demaale pour spécialement moom cere parce que dañu war a dem ci bës bii ba pare dem dem ba Fuuta ut fa ay toggkatu ñeex ay Haalpulaar yoo xam ne ñeex bi dañuy togg ay séeréer yoo xam ne cere kon bu cere ba neexee séeréer la bu ñeex ba safee Haalpulaar la waaye ñi koy lekk nag di taalibe seex ak ñi fay nekk ak murid yëpp yàlla na rees ak jàmm ndax berndeel bu am solo la loolu la nag ay naar yu nekk Maroc ak yu nekk Arabie Saoudite ñoo fas yéene togg 32 xar yoo xam ne soosu tàndarma lañ koy toggee jéema tàndarma bu ñu dëbb ba mokk jël lem diw ko xar yi def ci tuuti euh, diw ñor diw ñor baxal xar yi ba pare ba mu dama yàbb ñu xëpp oh. àjjana nar naa neex gis nga àjjana ñun yëpp yàlla nañ fa dem waaye yàlla na yéex dëgg naa ay géeji géeji meew ak lem géeju meew ak lem amul merte kenn du faatu ñëppay dund ñëppay tolloo ku ku ñaaw moom ñaaw moo tax gis nga ñu ñaaw fii muñ leen rek ñaaw fii la yem mais ñu ñëpp buñ demee àllaaxira la ñuy rafet ñu gàtt ñii muñ leen gàtt fii la yem ñun ñëpp buñ demee dañuy njool lu leer laa leen wax ba pare nag moo tax teey baax na am na yoo xam ne boo koy def fii boo demee fee doo ko fa def fee amul kii sama jabar la de ay jabar yi jabar ngay am ay jabar ñoo xam ne pour sa ñegeñaay kese ñii pour sa caa tànk ñii sa loxo ñii sa nopp ñii sa bët ñii sa gémmin kenn ku nekk benn cër buñ ko jagleel <laughs> ay waay ay man man rek yàlla na yéex <laughs> man ci biir àjjana ak juróom fukki jeeg ku ne fenn mbokk xam nga xaw ma jëm. Macky Sall la ñuy seeti. ma ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant. di am mbégte ak contentement bu rëy ci li nga xam ne moom mooy seen comportement ma bëgg wax ak tamit yéen waa militant APR yi dara du ma ëmp ak ki nga xam ne mooy suma papa di Ablaye Wade yàlla na fi yàgg te wér ku ne amin yàlla na fi yàgg te wér gis nga réew am na fu ñuy toll kenn ku nekk da nga war a indi sa xalaat ci ñu réew mi di demee kanam waaye lu daloo ginnaaw réew loolu boo ko defee yaakaar na yow yaa ngi yàqal président Macky Sall mais yow sa bopp ngay tarrel parce que quoi qu'on puisse dire les sénégalais bu ma leen defuloon liggéey bu ñu doy kon du ñu renouveler suma mandat ah kon li nga xam ne mooy coow li coow li ci bopp ten bi ñu amul bag waaye ñu am baag tey root dañuy root dem seen yoon duñ fa nekk di xëccoo am na loo xam ne presse sénégalaise ci boppam ñoo ko war a dépassé man bu fekkee da nga nar a ñëw wax ci loo xam ne bu ma ko bindee dafay am ay commentaires ñuy temps au lieu de chercher les réalisations du président Macky Sall wax ci ça fait même pas deux semaines j'ai financé deux milliards pour affaire un milliard pour affaire cancer jigéen yi ah ñu ngi nii di préparer indi ay oto yoo xam ne ñoo la remplacer tata yi di daw mais c'est des investissements yoo xam na la presse sénégalaise doit fair la promotion de ses sorties ah parce que bindal président lu muy jëf moo gën ngay ŋàññ président ci lu ma xam ne ko man damay wax dëgg rek te yàlla tax ñun ñëpp ay sénégalais lañu xam nga bool boo xam ne dañ ko teg ku nekk war see dugal sa loxo am ñoo xam ne dañuy yor suuf nank di ko ci dugal te nga war a lekk mu nar la karaj boo ko gisee mu ko def ne ko yow li nga def baaxul te ñoo bàyyi man maa aye nañu bàyyi ma togg sama togg bu keneen ñëwee nga ne ko yow yaa dàqale ki fi nekkoon waaye nekk ci ndab li ma togg sama togg ba pare dama marché joxoo ma dépense joxo ma dara di jël sama ceeb wala sama cere di ci dugal suuf ba pare di toog ci ndab li di lekk loolu du ma ko nangu affaire deuxième mandat bi xam nga fii àddina yàlla rek moo xam jumaa ci boppam mosoo dégg ñu ne jumaa bi defar nañ ko dootuñu ko yokk boo demee ba màkk léegi màkk kaaba ga saa yoo demee ñu ne la puus nañu fii dara am na luñ ci yokk bu njëkk ba danga doon war kaaba bi rek mais léegi da ngay tem ci kaw di ko wër parce que am na ay amélioration chaque année nga yokkul taj fii yaatal sa kër sax boo ko yàlla bu la yàlla may sa kër des fois nga xool waañ bi ne waañ bi dama ko bëgg a déplacer génn ko ci biti mais xam yaay xam ni ko defee man yàlla dimbali ma ma am benn mandat. ngeen neex ma ma neex leen ngeen tollanti ma beneen mandat. te man maa waxoon ne ci deuxième mandat bi laa koy yemale. Uh-huh. waaw man maa ko waxoon. ana ma nekk ma nii. nan laa tudd. nan laa sant. fan laa dëkk. lan laa jiite. waaw kon léegi man est ce que dama soppeeku tuddaat beneen tur waaw mais est ce que dama wax loo xam ne dafa nuroog loo xam ne man dama jëm ci li nga xam ne moom dañ may wax waaw mais yàlla moo wax ne bu fekkee ne dafa am sabab parce que Sénégal yaakaar naa ne fii ak 2024 laa war a jaxal mais bu fekkee ne dafa am ay chantier yoo xam ne dafa war a egg 2025 te mu war ma ne su ma ko eggalu mu gën a rafet jaam ak pexem yàlla ak dogalam jaam ak bëggam jaam ak bëggam yàlla ak dogalam jaam ak dogal yàlla ak astafurloo bëgg jaam ak deuxième ci gàttal nekk na loo xam ne yàlla rek moo xam li nga xam ne moo nekk ci kanam ci deuxième mandat bi parce que xam nga deuxième mandat bi dafa war a jeex ci deux mille vingt-quatre bi bu jeexee ci vingt 2024 bi dafa am keneen ku war a ñëw mais am na yoo xam ne boo ko eggali dangay ngay ñaan yàlla yalla may la fan bu gudd ak boo ko eggalee ak wér bu fekkee wér nga nag dara jotu la te sénégalais doyaluñu yow yaay jëm a xool nan ngay xoolee wala nan ngay waxe mais ku mën benn ku mën ñaar ku bëgg ñettal nag yàlla rek moo xam parce que mandat moom deux doyu ci trois doyu ci yaay xool li loolu xel may rek waaye deux moom parce que loolu am na deuxième am na waaye tarxiis mooy troisième waxuma ci laa jombe waaye yàlla mooy wax ne